te bul dem jamonoy trois heures nag buñ la ko convoquer na nga na nga lànk six heures ngay wujj ndax mu xaw a sedd noonu waaye trois heures affaire yi da comme daa nekk ci deret day gilliwaat asalaamaaleykum commissaire Kayta <laughs> nee na den koo convoqué nee na den koo convoqué <laughs> dig dig moo ko convoqué wuraawa dan waa convoqué dig <coughs> mana ko wujjee rek xam naa xeex bi lay laaj ñoom demee woon kat xeexu président ak xeexu premier ministre kenn daa ko a comme ya ki ko njëkk a il faut il faut <laughs> il faut rencontrer di quoi <laughs> c'est comme c'est convaincu comme Cheikh Keïta il dit le le le de 80 ans il a assisté des combats de siècle combat de siècle qui rencontre le premier ministre et le président et seen jotee de partir au Magal le président de moi est parti au Magal et le premier ministre de euh, moi est parti au Magal et il est déclenché au Courpagne. Tout, tout, tout, le huier qui commissaire Kaita qui l'a fait que derrière, mais il n'y a pas de athée. Euh, personne n'a assisté à la danse parce que le, président Ousmane Jogo, qui est karatéka, il est kunfuka. Mais le demain, il est chef 10, quoi. L'Europe, non le disait. Il est dans le fait que des di xeex mais c'est pas kon waa dig dañ ko convoqué pour laaj ko lu tax atte but xeex bi quoi xam naa loolu rek euh, boo demee loolu la la laaj boo demee dañ ci tontu xam naa lu gën a leer <laughs> bul jëli sol bul jëli sóol bul boo jëlee sóol boo demee doo xam looy tontu de bul jëli sóol bul jëli sóol sóol yu baaxul waaw te bul dem jamonoy trois heures nag buñ la ko convoqué na nga lànk na nga lànk six heures de matin ngay wuy ci ndax mu xaw a sedd noonu waaye trois heures affaire yi comme daa nekk sa biir deret day gilliwaat